Euh, muy bergerie boo xam ne defe naa sama papa ji dina taxaw wax ñu fi may ba bergerie kii rek ziar naa la. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. tur bi. Ah, ñu tudd El Hadj Cissé ferme Dabax élevage. Dabax Dabax fa la ñu mujjee daje maa yow fii laa wala. fii laa lañ mujjee daje waaw. macha lañ mujjee daje. ah El Hadj Cissé maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax. bi macha euh, allah euh, dafa naa ni. boxe bi tey champion bi am na fu mu jaar. dafa naa ni moom mooy kan am ak lu mu liggéey. voilà kii mooy Dabala. Mhm. léegi moom moo nekkoon doomu Vietnam la nekk.

non waaw benn maa ko jëndaloon si man la mujjee ci ah, loolu mujjee si lo laa ko jëlee woon mais si man la mujjee après ci loolu daanoo quoi man la daanoo macha allah macha allah moom mu am ñaata mois moom léegi amna na 26 mois 26 mois 26 mois la am ça veut dire que ba ba mu juddoo yan critère nga gis ba téye bon première fois bi moo doon lu mu ak sama xar yi parce que xam nga yaayam doomu ngaari la ngaari nekk doomu donc comme sama nekk doon sama man si ah. man moo taxoon ma téye ko après ma libéré yeneen yoo xam ne seen sama samay xar lañ quoi. ok ko moom waaw ko moo doon objectif tey euh, moom euh, doomu Vietnam moom rek fa des ci wala am yeneen yu fa des. actuellement Vietnam moom rek moo fa parce que yeneen yëpp dama leen joxe. comme dafa amoon ay tabaay xar yu ci bëggoon. donc yëpp dama leen joxe quoi. nga jox leen dama ko dama ci ga ci wala am na beneen fa si léegi am na domu doomu bu fa nekk bu wax Samir Younus. moom mu fa. Uh-huh. am na beneen sën encore wax Jarbat bu fa boo xam ne sëtu Saloum la. si Saloum la waaw moo war a ànd moom ci liggéey waaw macha allah tey nga eh, kan la àndal yan yan yan femelle la àndal. bon dama andiwaale woon ñaari doomam. ok ak eh, ñaari jabaram. ok wala ñetti jabaram. ok waaw ñoom laa ko andiloon tey quoi. ok waaw kii. kii moom mooy eh, moom si jabar yi la bokk. am naa moom ñaari ah jabar am naa am naa am bi ñaari am bi ñaari ok waaw. am naa ak maal bi ñaari porte ñaari porte moom moom moom ci yow la juddoo am naa ak maal bi maal bi ñaari porte Hélène ci yow la juddoo Hélène ci man la juddoo waaw ah, ok waaw ok ak euh, ki noir euh, añee bu ñuul boobu nag añee bu ñuul tam doomu maal bi la moom doomu maal bi la doomu maal bi la ok doomu maal bi la yaayam encore mooy Hélène quoi ah, ah Hélène moom moo jur euh, kii bi moo moo jur añee bu ñuul boobu añeel bi waaw moo jur añeel bi waaw noir blanc bii nag noir blanc bi mooy mooy taawu maal bi moom mooy soxu bébé ah moom mooy taawu maal bi mooy taawu maal bi mooy soxu bébé ah, moom am na léegi douze mois moom mooy soxu bébé. 12 a porté. mi ngi doog a tëbu. mi ngi doog a tëbu a tëbu donc fi nga ko fixé euh, euh, euh, bu nekk kër nga croisé sànq. moo ko tëb. Ah, bi ñuul ba ca kii ba. kële na doomu francophonie la. ok francophonie doomu Koromag. doomu doomu Koromag Koromag Koromag bu mag ba Koromag bu mag bi macha allah. ah ok moo ko jur ko. mu des añal euh, añal bi. añal bi beneen añal bi waaw bu weex bi bu weex bi doomu Sébinton la. ok doomu Sébinton la. yaayam nekk doomu Mandel. kon mën naa gëm ne jigéen ñëpp fële ci yow waaw xarit bi nekk moom. Ah. xarit bi nekk yëpp fu lañ juddoo. ci yow lañ juddoo. actuellement nii maal rek lay dugal mais bu nekkee xarit jigéen ñëpp si maal lañ juddoo léegi. macha allah waaw maal rek lay dugal léegi quoi. maal jigéen ne Euh, ba mu ba mu jigee Saladel nekk Espoir tey mu ngi toll si ñaata mois nga ni. léegi am na 26 mois léegi. léegi euh, naka la production moom mu ngi jur quoi parce que xar bu jur mbote bii nii. waaw xar bu jur mbote bii moom kenn mënul wax ne jurum quoi. macha allah mu ngi jur quoi. ok kon euh, ferme Dabakh fan ci liggéey bi ndax ferme naa yéen da nag. waaw dañuy def nag waaw dañuy def nag. ok macha allah def nag quoi. lu nekk liggéey bu rafet. waaw tey Adam bureau yaa ngi ñëw Adam waaw yàgg naa ñëw Adam depuis 2014. macha allah 2014 ah, moom dama leen di ñaanal rek. parce que mhm. ay xale yu am ambition di ñaan yalla dal yeen bi woyof ci ñoom ba lépp luñ bëgg def mën ko def te buñ bëgg yobu adam yobu ko ko allah ci dara jàll xam organisation uh-huh. allah parfait lu ñuy wax espace baax na uh-huh. organisation bi allah ok allah allah ah, cité d'accord euh, di la wax ne ni euh, ñëw d'accord ah tabax élevage allah da ngeen euh, di ci amul même problème ok kon adresse numéro la voilà ñun ñu ngi 52. Ah. bu nekkee ferme bi la mu ngi nekk Bourou. route de Mbour après garage benn yi. ok voilà téléphone bi 77. 472 72 12. dinañ def embauché. non non ñun meew rek la ah, def. meew rek ngeen def ñun ah, meew rek la def. nag yu meew rek ngeen yor nag yu meew rek la ñu yore quoi. ah macha allah nag meew rek la ñu yore quoi. jërëjëf kon euh, ñu ngi kontaan ci yow. d' accord waaw